léegi ñu fare ci nguur ñu ngi dëgëral di xàll yoon ñetteelu candidature wala ñetteelu mandat. waaw loolu wax nañ ci boppam nee nañ Macky Sall amul mandat mandat sénégalais yi ñoo ko moom sénégalais yi ñooy joxe mandat moom candidature am la am donc jox nañu candidature am benn yoon ñu jox ko mu joxaat candidature am ñaari yoon ñu jox ko suñu mandat suñu charte ndey réew mi ne. nit mënut def ñett kon débat boobu jarul wax moom ci boppam nee na buggul ci wax du ci wax waaw di ci wax déet ku ci tudd sax mu dàq la kon kay moom wante def na lépp patt nag patt lay tekki nam ne patt lañ naan patt bu jéemee teg troisième candidature ñu fekki ko pale génne ko fa loolu lañu ci mën a wax jeex na juridiquement il faut ñun nekkuñ ci ay débat juridique ay yooyu noonu yooyu yëpp dañuy guddeel di ñu sonal parce que juridiquement mën na ko juridiquement mënu ko c'est la même question qui va se répéter jamonoy Abdoulaye Wade loolu lañu doon wax donc bu fekkee ne Macky Sall lui en toute responsabilité bokk biir m took moom ci boppam créer le mot M23 le mot M23 vient de Macky Sall en réalité bokk ci di xeex loolu ne Abdoulaye Wade bu demee palais on va le déloger en personne moo ko wax moom moomu ñemewul def troisième mandat parce que xam ne il sera délogé